système mooy pro promu réew parce que ñun dañuy jël benn tradition boo xam ne mun na jóge Occident am nañ teg benn tradition boo xam moo fi jiitu sax dans le tissu social jógee au niveau de l'Orient muy véritablement ces daara la et l'enseignement coranique gis nga système bi nag waroon nañ ko mun a ramasser globalement te gis nga système boo koy ramasser globalement da ngay xam ce qui est formel et ce non formel da ngay xam ce qui relève de l'enseignement général et ce de l'enseignement technique la formation da ngay xam ce qui relève de l' enseignement public et ce qui relève de l' enseignement privé nga xool nag les ordres d' enseignement préscolaire élémentaire moyen secondaire université gis nga pàcc boo ci jël rek waroon nañ ko mën a càmbar xaj na tey jot gi moo ñu ko mayul mais les daara dans un premier temps dañ ko laissé woon en rade te gis nga le tissu social li fi sax dafa am solo tey boo demee fu mel ni Saalum soo leen ëndeelee le modèle classique muy école bugguñu ko ñoom dañu am ce qu'on appelle les daara ñoom li ñu gëm mooy xale bi su juddoo dafay jàng alxuraan ba wattu ko boo déggee ñu ne diw jàng na alxuraan ba wattu ko mooy diw jàng na alxuraan ba tey bu ñu fekkoon kaamil bi ñu sàcc ko xotti ko taal ko ñoom mën nañ ko restitué waat xam point yi fan la nekk marché fan la nekk loolu mooy jàng alxuraan wattu ko ñoom loolu la ñu gëm ci loolu la ñu nekkoon kenn accompagné wu leen parce que gëmuñu la modèle classique jusqu'à présent nga dem à Touba bul fàtte en 95 sëñ Saliou dafa banque mondiale ba ñu ñëw mu ne ñaata milliards ngeen def ci classe yi ñu ne temps mu tëj classe yëpp dox leen seeni caabi Touba amul benn école française bu fa nekk kon nañu xoolal xam ni daara yi c'est une réalité. de mm-hmm. nañ leen dox seen cër ba mu mët sëkk. Mm-hmm. dëgg la rek. am na effort yu ñu def parce que bu ñu demee ba créer l' inspection des daara bu ñu demee ba le président de la république. ñu ngi koy moderniser justement. oui bien sûr la banque mondiale accompagne tout le accompagne parce que c' est une réalité. d' ailleurs ñun bu ñuy calculer suñu TBPS wala suñu TBS dañuy jàpp ne rek ñu dugg dans le modèle classique la ñu war a jël alors que ailleurs fu ci mel ni Madagascar ou ailleurs dañuy jël ñi nga xam ne ñi ngi ci médersa yi wala ñu ngi ci daara yi mais daara yi. dañ leen war a gën a accompagner moderniser leen ba pare xool seen ay curricula parce que d'ailleurs curriculum des daara sax am na on a pris conscience mais nag toujours liy des mooy mettre suffisamment de moyens yoo xam ne fu muy jógee ci état bi loolu mooy des on attend toujours l'accompagnement d'un bailleur. très bien la banque mondiale bu ci defaloon xaalisam du ñu def dara ci daara. Badou Kajoor la dernière question.